Atlântico. waa Cécile yow man rek may ñew man dama sonn ci ñew bi ñew bis bu nek yow dal sa kër gi do ko fas yene genn ben ben ben yon yow dal mars ak kër gi rek jeex na. yow yow ku mujjé kër morom ma. yow barki dem li nga ñew sama kër lolu ñew yow nga jóge marché yex sa tok ma ngi dem talé añ lolu moy sa ñew yow taloo ma sa xar yi khalifa Mansour dongo nga tal. waa ñëw wax naa loolu leer nag dootuma fi ñëwati. yow munoo bañ a ñëw ci man. xam nga pël laa de <laughs> ami lay sama yaay de lu leer nag laa la wax sama la ko waxee gëm ko. waaye yaayoo wuyu ma na ma laa soxla woon sax lool nag. waa soxla woon naa la lool mbiru Sophie nii. Sophie lu ko dal def feebar. ah déedéet ndax di taal sa feebarul de ci jàmm. waaye xam nga lu tax ma soxla la. Hmm. Sophie mii. ba mu duggee du sëy ba nëgë nii yàlla xam ne xam ne lenn ci moom du jëm ci biir néegu sëy waa sësi su fi benn la ci yow dañu doon ñaan yàlla su fi am jëkkër am sëy bu baax su fi mu ngi ci jàmm jàmm rek rek rek rek rek mooy ubbe su ne woon ci leneen moom sax du la ko wax nopp amul kubéer de su ne woon ci leneen suba ba jant bi soof dañ lay sofi sax du la woo ñeneen a lay woon di la ko wax loolu kay du dar waaye nag ne léegi téléphone am na su la su mëntu ñëwit mu woo la su ko defee nga xam ci lu mu nekk yow nga xam ci lu mu nekk loolu rek la. waaw sax waaye xam nga day benn. dëgg su ma sañoon xaw ma lépp lu ne ci biiram waaye nag mu waxtaan ak ma su ko defee dinaa xam ni mu toogee. waaye sësël mun koo may tuuti am loo xam ne dinaa ko ko ñambaasal sax ci biir néegu sëy. bul fàtte ne Sofia ko jot. Sophie ci boppam yow la jël yow mën mii di sa xarit benn bakkat demal le balaa nga maa wax day fekk sonn ma damay gas a gas ba sonn ma soo ko xam le ne ci yow yow yaay ndeyam Sophie jikkoom bee da ko doon ci yow sa jëkkër kenn mësul xam loo am ak loo ñàkk danga séy ba sa jëkkër génn àddina waaye nag naa la xamal lenn de soo moytuwul nag dootuma fi ñëw na damay sama ker, man wallaa de waxal ci Mansour waxal ci Mansour eh indi waxal ma koy jox Khalifa indi andi rek andi da nga rew ba dof wala rek demal wa demal wayo so rew do ma nuyu sax gis nga yow man li ma nekki ci kër gi yow ni nga yere sa doom yi waaw waaye nag def xam nga nii rek laa dëkk ak ñoom waaye nag mbiru sofi rek moo ma ñor man fi mu toll mbiru sofi ñor na ma lool yaayu léegi doo fa dem seet man de damaa bëggoon a waxtaan ak yow ba noppi. ba xam loo may wax ah bu ko defee nga xam lan la toogaale. waaw kon baax na man dinaa fa def. noonu la ñuy def léegi nga fay def. jàngal école xam njëriñam loo don ndongoom loo doon sëriñam jamonoy tey ku am da do jot doon so am. Gemen wahu jopoli gestu Belum yai upah ufa kastadu Sama memenung demba cisohi Gorgol elek men cisohli Sakai kenyang mawah layakan Serupuk Soy Jarito, Cucubolo, Cristina Juana, Cauca. Con fosagadi yuhatara konaonaola moisanaule vecikollere ulakojara bultukibuki bultukikuti nangutukikuti jawanko juli bulnangukulanah jaila janjiba bulnamnomlet leklenusinda degluli baydi wax lila yay digal so bëggee am

nga ñëw génn yor yor rek mu yobul ci serigne abdani mu defal la ay ñaan deg na ko wax rafet na ndax dag ma jappé ni dom jow sukk motax nga wax ma ni deug la waye suma démé na naa jox taan sama nah, tante awa la ilaha illallah ay dom xanaa dag ma bëgg a tëggalum awa gay ma awa gay kay bu ci desee nga bayiko hi hee sa waxi tante moom dugguma ci man iya, yàgg iya, genn yoon yow iya, sa goro ba nga paaral bi

Serang saja. Jadi. Eh, eh. Yo ko nga demoon wala kon foo jaara? Ay tante, dama ànd dugg marché bay nakar rek. Man marché bay nakar boo waxee muy lam Te waxati tante de. mag bu dem naa ma tànn boo demee sax yaa na maa jàpp gis nga kër gi da ngay sëy sëy bi man ci laa bokk juróo ba woon